am benn xale bu ko yor. benn xale. waaw moo seen expliqué ñu lan la exactement. benn pitax la. Mhm. xale bi dafa liggéey ba wàcc ji ñibbi. Mhm. ci VDN bu bees bee ñuy tabax bu jëm bu jëm mu. côté Cambérène. mu gis pitax mi. Mhm. di naaw nekk ci tali bi oto yi di ko bëgg a mbëkk. puisque gone gi xam naa ko gone daara la mu daw dugg ci biir tali bi jàpp pitax mi pour sauver ko. pour bañ oto yi ray ko. bi mu jàppee pitax mi nag ci la gis ne pitax mi dañ ko takkal téere. mu tekki téere bi tàllal ko gis ni xaatim la mhm. mooy yii nii nga ma ji waaw dañ ci xaatim tuuru nit maanaam nit ku ñu liggéey di ko naawtal des fois da gis nit koo xam ne ma nga jógee ma nga jóge ma nga jógee Casamance wala nit ka jóge ca ca Guinée Bissau di dox rek ba ñëw Sénégal kon nit da leen gis caale bi ñuy dox rek di dem ñu bari dañu réer dañ leen a naawtal des fois nga gis nit ku nekk Europe ay mbokkam toog fii dem ci sëriñ naanaaw naawtal ko mu ñibbi si sax te du xam lu ko indi te dootul mën a dellu. li nga gis nit ku ñu def directeur société. Mhm. mu yamale toog ca bureau ba ko ko rey. voilà parce que tayu ko. yu mel noonu la nga gis ngay nit am jabar jabar te mënul toog ca jabar ja nit am jëkkër te mënul toog. léegi yow. gis nga téere bi. gis naa téere bi yónnee naa la lépp. mooy lii waaw léegi yow téere bi yow ku la koy tekkil pour wax ñu lu ci nekk. voilà très bi ma ko gisee. Hmm. damaa jël ñetti buxaaba yoo xam ne xamante wuñu bokkuñu dëkk bu ñu dëkk bokkuñu sax région kenn ku ci nekk moo yónnee li xale li ma xale bi wax ak photo yi ak téere yeeg lépp ñoom ñaan ñëpp ku ñoom ñetti ñëpp ku ne tekkil ma lii xaatim bii lan la. wax nañ ko déglu. waaw léegi en attendant. waaw xaatim beeg pitax bi. waaw danaa ko dugal ci page xalaas. <laughs> kon ne page bu Facebook. page bi parce que ñun li ñuy gis auditeurs yi dañuy bëgg di ko gis. voilà te dafa war a leer. fi ay lam laam ak ay tiaf yooyu amu fi dafa wara a leer nañ que ni li mo am Sénégal oui ma jox ñu comme nonu ñu ko gisee rek comme ak téré bi nonu dama wàcc eh, liggéey eh, jóge inte 15 dem di ñibbi inte jaar ci autoroute bu bees bi nonu léegi bi may dox tuuti ci kaw talibi ci la gis eh, picc bi ne ci kaw talibi nonu quoi ci la daw ba ko sauver ak auto yi nonu auto yi daw non diko rombu ma jël ko ci laa remarqué ñu takk ci laaf bi benn téere bu weex euh, affaire bi xaw ma jaaxal ma euh, am yaakaar ne lii naawtal la war a doon quoi naawtal nit léegi ci laa ko jël tikki ko taalal téere bi photo ko noonu mooy photo yi ma envoyé noonu quoi. lii mooy téere yi nga xamee ne wala liggéeyu bon yi nga xamee ne dañ koy liggéey doomu adama buñ ko defee doomu adama ba takkal ko pitax wala picc. mu naaw moom mooy faral di def nit ki nga xamee ne def nañ ko heure bu picc mu jógee rek moom dafay jóg heure bu picc mu taxawee waa mu taxaw bu demee nag ba nga xamee ne am na ñetti fan walla euh, une semaine bés bu dafay fekk liggéey bi euh, dëgër liggéey bi nekk loo xam ne nii daal day chronique ci waaji ba tax na bi tax mu dee mu ñàkk dee waaji dafay continuer rek liggéey bi jàpp ko ba ila abat wala ndimbalal yàlla ñëw dajee ko xam ne nii mën na ko ko dindil waa mu dindil ko ko waaye liggéey yu mel ni yu ñaaw la yoo xam ne ni daal ah sëriñ su koy def daal wala nit ñi koy def daal war nañoo xolaat seen bopp ndaxte nit loo ko bañ bañ bañ bañ bañ war nga ko mën a ñàkk nawtal ci loo xam ne nii ko fenn ak lu ngeen mën a jote war waro di nawtal doomu aadama lii mooy faral nit ñi nga xamee ne danga leen gis dañuy jékki-jékki na bëreet dem seen yoon duñ ko tey ba tax na lii dafa doy waar lool dafa kéemaane lool lool lool waaye nag waa ji moom waa ji ñu ko liggéey nii moom na wax alhamdulilahi rabbil alamina ndaxte am na sëyam nday moo ko sauvé wala bi ñu ko takkalee téere bi bi nga xamee ne dem na commencé naaw rek ci la daanu ci kaw tali bi oto oto yi dër ko ba nga xamee ne man tuta moo tax xam nga tey liggéey bi dafa foor oto bi da koo dër mais deewul lii moo la war a xamal ne liggéey bi liggéey bu rëy la waaye nag ku sa liggéey moom seriñ lu mu rëy rëy rëy wax ma du la de mais nag ah dana jafe lool lool lool lool lool waaw lii de boo ko gisee moom mooy dañuy wax naawtal naawtal nag mooy li nga xam ne a ah, gars yi nañ koy xeexee nit waaw ñaare nga ñëw ci sëriñ ne ko dama bëgg kii boo kenn gisati wala yu demee noonu waaw ndax itam bu dee xaatim bii nga ma woon bii ci jublu maanaam mooy keñ koy def bu ko kenn dégg bu gis mhm. waaye nag ah misaal mi li mu ne nii nag mooy liggéey bi moom ah, ah bii moom yàqu na waaw bii moom toj na waaw nawetaan nag bu ko déggee nag mooy loo xam ne wax dëgg yàlla moo waral ñu bëri daanaka da ngay gis nit jógee fut mel ne nuñ joxeeti ca gannaaw ba ma ko ñëw Sénégal di wëndeeg wëndeeg yi kenn xamul fu mu jëm waaw du xam fu mu jëm moom daanaka fu fu ko affaire yi xiir rek liggéey bi fu fu ko yóbbu rek fa lay dem daal waaw loolu yëngaw daal ñaa ngi ñu bëree bëri ay mbokk ñu naan seen mbokk bañ leen gëjee gis ak mën na nangami at ak yu demee noonu ñaari lu ci ëpp naawta la koy def nit ku xëy rek dem ñaari lu ci ëpp waaw naawta la koy defaat dëgg yàlla naawta nag moom day liggéey bu bon boo xam ne wax dëgg yàlla yàlla nañ ci yàlla musal musal ci mboolem jullit waaye waaw lu doy doy war surtout bii nag bii moom wax dëgg yàlla bu bon a bon a moom macha allah lu bu bon a bon a kiñ ko yéena suñ borom musal ko ci ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ci doy de mais la naawtal la mais xaatim bi nii xaatim bi béyti àll bi waa ji tur yi da dugal ko ci biir tur ay chiffres la def. moo tax doo fi ne kenn du mën a xam kan la ci dugal mais chiffre la ko def da ko déchiffré ndax baytil xaal bi mooy bi ci digg foofu la foofu la ñuy def nit ki mais foofu moom da cee def chiffre la ko def chiffre mais nag liggéey bi toj na ki ko def da dee borom bopp ndax bu picc mi deewoon rek waa ji dana dee bu picc mi deewoon naawtal la naawtal naatal la waaye yàlla def nañ suuf. xalaas. kii kay dama war a may Aida Samb rek. la ma waaw. ban affaire bi <laughs> kenn mënu cee wax fii giso affaire bi. ban waaw dafa yéeme. dafa yéeme. ban dafa yéeme. ñaata yoon laa la woo. ñaa moom kay bari na yàlla rek kay Karim. ba rek. yàlla. bopp boo xamul du bind mukk ci fukk rey ci juróom-ñeent. dana bopp boo xamul fu ko defaree. mooy li ma la képp ku ñu tëkku nga tiit xam nga ne kii. Hmm. ka bind xaatim ba. waaw xamul xale bi xale bi. ki for affaire bi xamul sëriñ yi. kañ koy def xam nga koy jéem a liggéey far mu yëgg liggéey ba ci rajo moo la waree yàlla rek a fi nekk. Hmm. ne woon na. Hmm. def leen li ngeen mën ba ba mag li ngeen mënul. Mhm. wuy ma. Mhm. yàlla rek ay karim. non non moom. waa ji ndeyam liggéey na de. torop. <laughs> billaahi wallaahi. mën na lii mi ma ko gisee man damaa tiit. Ablaye Diop nee na nañu jóg avant ñuy jóg Ablaye may ma tuuti. benn xale bu jigéen boo xamante ne ji mi ngi wuyoo ci turu. Mhm. Nafisatu Fall. que permis de conduire bu mu amee Texas Amérique mi ngi fi ak carte d'identité porte euh, pochette bi la ñu indil. am na fi ay euh, benn clé oto je pense bi Peugeot la. bu am euh, brologue buñ bind. Mhm. sang bi. sang bi waaw. waaw ànd ak ñeneen ñaari clé na ko boromam jël si. te mhm. fay kii bi communiqué mhm. euh, bi. am na fi beneen clé aussi tamit euh, Volkswagen la. ànd naag benn genre statut buñ def boo xamante ne ji. bois la na ko ñëw jël si. jaajëf jaajëf jaajëf. yàlla. bob boo xamul du bind mukk ci fukk rey ci juróom-ñeent. lan la bopp boo xamul fu ñu ko defaree. mooy li ma la wax rek képp ku ñu tëkku nga tiit xam nga ne kii. Hmm. ka bind xaatim ba. xamul xale bi xale bi. ki for affaire bi xamul sëriñ yi. kañ koy def xam nga koy jéem a liggéey far mu yégg liggéey ba ci rajo moo la waree yàlla rek a fi nekk. Hmm. ne woon na. Hmm. def leen li ngeen mën ba ba mag li ngeen mënul. Mhm. wuy ma. Mhm. yàlla rek ay karim. non non waa ji ndeyam liggéey na torop. <laughs> billaahi wallaahi. mën na lii mi ma ko gisee man damaa tiit. Ablaye Diop nee na nañu jóg avant ñuy jóg Ablaye may ma tuuti. benn xale bu jigéen boo xamante ne ji mi ngi wuyoo ci turu. Mhm. Nafisatu Fall. que permis de conduire bu mu amee Texas Amérique mi ngi fi ak carte d'identité porte euh, bi la ñu indil. am na fi ay euh, benn clé auto je pense bi Peugeot la. bu am euh, brologue buñ bind. Mhm. sang bi. sang bi waaw. waaw ànd ak ñeneen ñaari clé na ko boromam jël si. te mhm. fay kii bi communiqué mhm. euh, bi. am na fi beneen clé aussi tamit euh, Volkswagen la. ànd naag benn genre statut bu ñu def boo xamante ne ji. bois la borom na ko ñëw jël si. jaajëf jaajëf jaajëf.